خاب الولاة زعيما تزور بوادي الذل سقفا لكاهنه إذا ما رأى خيرا رآه جحيما لولو إن يسمع الخير يخفوه إن يسمع الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا nit ñoo xam ne bu ñu déggee yiw nëbb yiw bu ñu déggee fett fettu ay tàllal ko ba mu àgg marché bu yiw amul ay amul ñu sos lii lu ci nit man loolu gën a amul ci pexe wante Maodo ko cité Maodo moo ko cité moo ko cité moo ko cité eh, waxu ko daf ko cité te ku koy faral di cité la ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك فانهى ابدأ بنفسك فانهى عن غير بلغا إيراشيز الميت فاميام سيات السبب لا إيراشيز السبب سديغن تبكن أكس روح أكس خل أكس خطر نغا إيراشيز الان بنبي farata la moo doo ko cité bi ci des mooy benn nag mais fàttalikuwuma nag baal ma yow eh, mi ko bind fu ma waxe loolu mais mën na nekk la mu ni dafa am bés mu déglu ma ma am bayt bu ma askanale euh,